rob saar ñaar kon nag mbokk yi gannaaw yërmande yàlla bare na noonu maa ngi leen di ñaan ngeen jébbal ko seen yaram wépp ne seen dund mel ni sarax suñuy defal yàlla sarax su sell te neex ko loolu mooy njaamu gi leen war bu leen àddina jay waaye yeesu leen ci seen xel ba soppiku ngeen mën a xam bu wér coobereeg yàlla di lépp lu baax neex ko te mat sëkk gannaaw yàlla may na ma ciw yiwam ma nekk ndawam maa ngi leen di wax lii kenn ku nekk ci yéen bu leen yëg seen bopp waaye ngeen am xalaat yu yem méngoog ngëm gi leen yàlla sédd ku nekk ak wàllam loolu ci maanaa mi ngi mel ni yaramu nit yaram lu cer yi baree bari benn nuroowul ak moroomam liggéey noonu itam nun ñi bokk ci kirist lu nu baree bari benn lanu te danoo mànkoo kon ginnaaw yàlla séddale ne ay mayem ku nekk ak sa cër nanu koy jëfandikoo ku yàlla may ngay waare kàddoom nga wax ko kem sa ngëm kuy toppatoo yëfi mbooloo mi nga takku ci ku yàlla may ngay jàngale nekk ci kuy fedd li ngëmu nit ñi ci yàlla nga sax ci kuy seddoo alalam ak nit ñi nga def ko ak xol bu laab kuy jiite mbooloo mi nga sawar ci kuy dimbali ñi néew doole nanga ci bég na seen cofeel di lu dëggu te bañ a nekk ngistal araamal leen lu bon te sax ci lu baax bëggante leen ak xol bu leer ni doomi ndey te farlu ci teralante sawar te bañ a tàyyeel di jaamu boroom bi ak seen xol bépp bég leen ci yaakaaru ëllëg te muñ bépp tiis di sax ci ñaan yàlla dimbali leen gaay yàlla yi ci seeni soxla te saxoo dalal gan ku leen fitnaal ñaanal leen ko yiw te bañ koo moolu bégandoo leen ak ñi bég te jooyandoo ak ñiy jooy bokk leen menn xel tey bañ a yëkkatiku di yetu daraja waaye ngeen fonk ñi suufe bu leen teg seen bopp boroomi xel bu leen fayante lu bon waaye sàkku leen seede su rafet ci kanam ñépp wut leen juboo ak ñépp ba fa seen kàttan yem samay soppe bu leen di fayantoo waaye bàyyi leen lépp ci loxo yàlla mi yelloo àtte ndax yàlla nee na ci mbind mi man maay àtte maay fay jëf waaye def leen lii bu sa noon xiifee may ko mu lekk bu maree may ko mu naan ndax boo ko defee dinga ko rusloo bu leen lu bon ëpp doole waaye noot leen ko ci def lu baax